Thank you. kuy yëngatu ci commerce import export gaawal contactel tellement. Maktoum business service yu yaatu te am toppatoo lol. di yëngu ci sérigraphie décoration xoolal amal sa événement rek contacter Maktoum business mu defal la ci ay t-shirt yu rafet am qualité soo bëggee itam mu tegal la ci ay casquette Maktoum business di def ay panneaux publicitaires ay gadget et enseigne lumineuse yow dal fexeel contacter Maktoum business ci 77 985 47 58 wala 33 926 63 69 Maktoum business seen service bi yëngu ci walu commerce import export ci tëtëtëtëb sérigraphie mom mo ci ay loxo bi setna décoration mom waxatu ko dañuy confectionner ay t-shirt casquette panneau publicitaire gadget enseigne lumineuse fi dal fi la lépp ci Maktoum business ci Maktoum business professionnalisme fi le fek bar ni nit ñi bàyyi xel seen bopp li xew ci réew mi ëpp na góor gaa koy wax ci yenn di waxtaan xale yaa koy tegtal te li fi dee ci ay nit mësul dee fenn Macky Sall toog yi ba ku fi baaxul ci Sénégal wax leen ku fi baaxoon nag dem ay nit yi xol yi xol yi lañu sotti ci réew mi mu tàkk mi mooy coow loo xam ne taaloon na réew mi ñaari at ci gannaaw réew mi yëngu ba ñëpp jàppoon ni nguuru Macky Sall sax dina rob te bu ñu wéyaloon defe naa nguur gi rob na coow li yëngu réew mi ba fukki bakkan ak ñeent rot ci lu mat juróom benn fukk juróom benn téeméer six ci ay nit gaañu ci ñii seen bët ñii seen loxo ñii seen tànk ñu ne lu mel ni musuñu gis mu am senegal wala mu toll noonu yàlla def ci ndox mu sedd jaarale ko ci ay intervention yu amoon fii Sénégal yépp jàppoon nag bu ñu génnee ci loolu kii nga xam ne moom moom lañu ñu dénk réew mi muy Macky sal dina bàyyi tappale yi ak caaxaan yi bàyyi justice àttekat yi muy utiliser pour xeex ay adversaire politique am bàyyi alkaat yi muy dooleel na leen dal leen ci kaw citoyen te xam ni liñ ko fi tegee mooy defar réew mi jubbale Sénégalais yi. nit nit ñi bàyyi xel seen bopp li ci réew mi ëpp na góor gaa koy wax ci yenn di waxtaan xale yaa koy teg. te li fi ci ay nit mësul dee fenn. Macky Sall toogee ba léegi ku fi baaxul ci Sénégal wax leen ku fi baaxul Amen. ku yëngatu ci commerce import export gawal contactel ma maktu business service yu yaatu te am toppatoo lool di yëngu ci wàllu sérigraphie décoration xoolal amal sa événement rek contacte business mu defal la ci ay t-shirt yu rafet am qualité soo bëggee itam mu tegal la ci ay casquette maktu business di def ay panneaux publicitaire ay gadget et enseignes lumineuses yow daal fexeel contacte maktu business ci 77 985 47 58 wala 33 926 63 69 maktu business service bi de ci walu commerce import export ci de sérigraphie mom mo ci ay loxo bi setna décoration mom waxatuñu ko dañuy confectionner ay t-shirt casquette panneau publicitaire gadget enseigne lumineuse Fidal fille le la ci Maktoum business ci Maktoum business professionnalisme File fek bar.